dañu sant yàlla parce que tey dañu ñëwoon indi code de l'environnement euh, bi nga xam ne gouvernement proposé nañu ñu càmbar ko defaraat ko pour mu méngoog jamono euh, moom lañ fi indiwoon nag yàlla baax na député yi voté ko euh, c'est vrai que liggéey bi mën naa wax sax ni neexoon na parce que technique na yàgg na naam waaye Euh, lii mooy wane ni euh, d'abord secteur bi dafa intéressé nit ñi dafa intéressé ñëpp euh, et que liggéey bi dama bëgg ngeen jàpp ni depuis 2009 gouvernement mu ngi ci liggéey bi donc dañu sant yàlla bu antoo tey parce que code bi ñu soppi léegi 2001 la woon donc 2009 ba léegi nit ñaa ngi ci liggéey mais boo seetlee environnement ak urgence environnementale yi mais lu bëri dafa bees lu bëri dafa dañuy jànkantoo ak moom changement climatique yi dafa voilà dafa tar ci ñun moo waral euh, code bi chaque fois il a fallu ñu gën ko euh, voilà gën ko améliorer et cetera jàpp leen daal service yi liggéey nañ ci euh, def nañ plusieurs ateliers ay comité technique dajale ci ñëpp ñi nga xam ne war nañ ci jox seen xalaat maanaam yeneen département ministériel yëpp boole ci dem borom xam-xam yi bi ñuy bind bi ñu koy xaatim sax dañ ko jébbal laboratoire droit environnemental bu université Cheikh Anta Diop ñoom it ñuy jox ci seen xalaat wax ñu en tout cas ci rédaction beeg yooyu. Euh, code bi euh, liggéey bi dem na ba euh, assemblée générale bu cour suprême soog a ñëw secrétaire général gouvernement dajale encore tous les techniciens ba finaliser texte bi donc aujourd'hui texte bi conseil des ministres voté ko approuvé ko moo fi ñëwoon tey kon nag dañuy sant yàlla bu ko député yi voté naam c'était comme ni ma waxee technique y a eu ñu demee commission technique ñaari amendement moo amoon Euh, woo xam ne député proposé na ko ñu étudier ko mu méngoog un peu loo xam ne day indi euh, en tout cas avancé ñu adopté ko ci texte bi nga xam ne ni mais bi ñëwee tey à peu près euh, ñaar ñaar fukk ñaar fukk juróom amendement am na mais député yi dans leur majorité jàpp nañ ne loolu indi loon lu bees wala en tout cas plus value itam assuré wu loon cohérence globale texte bi mais itam cohérence texte bi ak yeneen texte yi nga xam ne am na fi yeneen secteurs yi. parce que mën naa am exactement ci li nga xamante ni moom mooy code bi. Euh, le essentiel code bi jàpp leen ni tey euh, code de l' environnement donc dafa jël lépp li nga xam ne tey euh, am na solo ci ñun ci liggéey bi ñuy def d' abord définition yi vraiment da ko gën a baral nit ñi gën a xam éléments yi ñuy manipuler mooy lan. mais itam dugal ci biir code bi lépp li nga xam ne tey engagement Sénégal la au niveau de au niveau international loolu am na ci solo dugal ci activité yu bees yi yu mel na exploitation pétrole ak gaz ak li liñ ci war a tere loo xam ne mën na am impact bu bon ci ci environnement bi gën a encadrer lépp lu jëm ci ay wàllu euh, étude environnementale et sociale nga xam ne tey dañ ko exiger dañu élargir sax ci secteur yu ne boo xam ne war na am impact boo xam ne war na mën a nocif wala Euh, menacer suñu environnement wala la santé euh, ñu ñu ñu dugal ko ci biir donc gën ko élargir donc en gros pour tënk daal euh, parce que code bi 255 articles la kon nga war a xam ni c'est assez c'est assez fouillé au-delà de loolu euh, mun ñu la ko bañ a laaj muy euh, situation actuelle réew mi euh, tey sa jàngat par rapport ak li nga xamante ne parce que quand on parle de l'environnement aussi ak manifestation yi ndax yooyu tamit mën na am impact ci environnement bi en tant que ministre aussi mais ñu laaj la sa avis ci li nga xamante ne moom mooy situation actuelle bi la tension politique. bon situation actuelle bu euh, doon activité politique simple da nga naan c'est la vitalité de notre démocratie mais il ne s'agit pas d'activité de quelqu'un qui maille partie partir avec la justice euh, am ñu taxaw ci réew mi ne justice du fi amee justice am mat gu day ne wane ni moom dépendrul ci kenn def liggéeyam rendre euh, son jugement te nag euh, dans un pays si on ne peut plus exécuter les décisions de justice mooy que ni kenn nekkatul en sécurité donc ci loolu la am ay manifestation manifestation yooyu nag du manifestation politique woowuñu kenn fii kaa ñu marche kaa ñu meeting wala leneen li ñu woo nit ñi mooy dañ leen woo à l'insurrection dañ leen woo à attaquer les institutions de la République dañ leen woo à faire tomber un régime démocratique élu par les Sénégalais kon loolu moo tax bu ñuy wax ay manifestation politique man dama koy génne ci politique parce que Sénégal quand même du tey la tàmbali politique te loolu bokkul ci politique am loolu kon dañ koy ñaawlu dañ koy condamner ba pare comme je l'ai dit dans d'autres sphères l'État du Sénégal est debout l'État du Sénégal day assumer ses prérogatives parce que nous sommes un État démocratique, mais un État de droit. Nous euh, bu ñu nangoo ñun Sénégalais, am suñu biir li ñuy woo li may woowee man des intouchables man naa maanaam koo xam ne euh, tey bu la tooñoon yooyu wala mu yàqal la wala mu gaañ la mënoo dem ci yoon ba yoon fii mbaxane doone benn jox la dëgg wala jox la tort ça veut dire que nekkatuñu dans un état sûr et stable donc loolu moo fi xew ñu koy ñaawlu parce que nit bu jógee naan la day manifester contre une décision de justice ne la demal nga yàq ay ay ay château d'eau yooyu nga xam ne foofu la loolu mooy jox ndox sénégalais yi demal nga attaquer par exemple les infrastructures qui leur permettent de se transporter de façon sûre demal nga toj fi nga xam ne dañuy approvisionner comme ça dootuñu mën a approvisionner parce que kii ñëw di jël euh, di toj Auchan am lu mu jël mais kii ko yabal ci loolu moom leneen lay set li mu bëgg mooy tey doo am foo demee marché doo dem génn ay xale ci école dem taal ay école xam nga ku taal ay école élémentaire mooy que ne bëggoo xale yi jàngi parce que ñooñu du ñu du ñu adversaire ci yow ku dugg université euh, Dakar yàgg nañoo grève xam ngeen ni am na ay jëf yoo xam ne loolu du jëfu étudiant loolu loolu ñun ñëpp bu ñuy wax dañ ciy génne étudiants yi parce que dañaa étudiant mënul def li mënoo dem di attaqué ay bibliothèque nga xam ne ñoom ñu ci bëree seen i thèse wala seen truc mu ngi foofu nga nga nga taal loolu di attaquer sesti di attaquer voilà ay ay ay ay ay pavillon et loolu du activité politique loolu nag l'État doit demeurer ferme ci ni mu nekk rétablir le Sénégalais dans leur sécurité seen dem ak dikk ñu assurer ko seen seen seen koom ñu assurer ko seen i kër ñu assurer ko parce que nag li ñuy woote nii buñ ci àndul ak euh, responsabilité mais war naa dana metti ci ñoo xam ne foogewuñ ko parce que boo jógee nga naan da ngay attaqué kër jàmbur te nga dëkk fi mu dëkk fi ëppoo koy mbokk ëppoo koy xarit ëppoo ko dara bu dee yow mën ngaa jël quelque astuce nga naan da ngay jënd ay gros bras mu xëy na moo la ko dàq kon la ñuy woote baaxul nañ ko teg ci suuf euh, moom laay conseil ku ne may waxaat l' état doit rester un état régalien boo xam ne day assurer ses missions au profit de sénégalais parce que loolu moo tax ñu teg ay bakkan yu ci rot ndax jaroon na ko. ah yooyu itam euh, bakkan muus sax jarul muy rot ci lu mel nii. masamaa nag nga naan euh, fukk ak juróom benn doomi réew mi loolu d'ailleurs loolu dama ne euh, il faut que état pousse enquête yi mu ngi koy def ba dëgg gi gën a feeñ mais il faut ñu dem ba ci commanditaires yi parce que c'est une responsabilité xam nga man tey moo doon def marche dem def sama dépôt pour avertir je responsable de yenn dérive yi am ci loolu donc ku woote lii mu am ci ay doomi Sénégal yu dee teg ci kenn ci ñi koy woote doo ci gis seen doom wala seen jabar wala seen rakk wala seen seen waa kër loolu damay wax ndaw ñi euh, ndaw euh, kenn du ko utiliser parce que en ce yaa ngi yàq son avenir na ndaw ñi xoolaat nañu topp man de sama doom loolu laa koy wax man mi sa bàyyi bu ma la woo ci dara nee ma jiitu ma topp sa gannaaw waaye doo ma woo ci ay njombe doo ma woo ci loo xam ne naa fa bàyyi sam mbakkan yow nga toog sa kër di ma seetaan ci ay whatsapp wala di di di ma déet ñëwal ñu ànd bu dee loolu ñor na la lool kaay ñu ànd ana ñii leen di woo gis ngeen leen ci mbedd mi doo ci gis kenn mu wàcc mbedd mi def yooyu kon bu jeexee la ñëw ñëw parade jaay voilà jaay fit et cetera kon loolu euh, du Sénégal yàq deru Sénégal ay génération ñoo tabax la réputation du Sénégal on n'est pas un très grand pays du dëgg mais suñu tour tour bu màgg la parce que ay nit ñoo ko liggéey ce marketing là qui a vendu le Sénégal boo jógee pour tes propres intérêts nga ne da nga koy yàq notre modèle parce que en réalité la li ngeen war a xam mooy modèle sénégalais la ñu attaqué notre modèle de vie la ñu attaqué suñuy croyance la ñu attaqué le fait man fii ma voilà may ma sant ndooy jaañeen bi mbengeen bi ñangeen bi faaleen bi doon samay kal ñuy kaf ak ree loolu la ñuy attaqué donc euh, ça veut dire quoi man par force danaa yegg ci la ma bëgg keneen ki la ma bëgg dama koy xeex jaral na ma ay nit bàyyi seen bakkan waaye dama koy xeex loolu nag bu amee boo deful ndànk ki la ëpp la ko jaay te loolu gisuma ci jàmm kon loolu on ne peut que regretter di moom laa wax ci assemblée bi dama tàmbale di jaale ñi nga xam ne tey seen bakkan rot nañ fii ci Sénégal parce que loolu ëpp na euh, te vraiment du loo xam ne war na am fii ci Sénégal. dama lay euh, ci li nga xamante ne. Ah, mooy interpellation député yi benn interpellation député yi mooy euh, yi nga xamante ne moom lañ doon wax ci armement yi. monsieur le ministre doy tontu ci loolu dama cee yàgg tontu moo tax léegi dama maar di ci tontu. parce que ci manifestation dafa am yu bees yoo xamante ni nit ñi dañ ko ci ko ci. Euh, yow da ngay def lien entre loolu. non man ni nga xamante ne moom la ñuy wax. non ke kooku kenn ñemul def lien bu ni mel parce que boo ko defee ñu yóbbuwaat la ci yoon nga ñàkk nga ne politique la. parce que bu ñu naan loo xam ne day équiper les forces de défense et de sécurité notamment ñi nga xam ne dépendent de l' environnement mooy les parcs nationaux mooy les eaux et chasse conservation des sols mooy ñi nga xam ne ñu ngi dans les aires marines protégées di aar suñuy frontières Euh, ci géej gi wala ci ci biir euh, dans le ñooñu euh, boo leen denkee na responsable ñu jànkonteel tey une forme de violence une forme de banditisme boo xam ne jéggi na dayo parce que nit ñi en face dañu dañu équipé wu mais sénégalais yëpp député yëpp fii bi ma ñëwee pour sama budget ñoom ñëpp dañu ne bu doon suñu sago ñu yokk sa budget parce que il faut ñu équiper nit ñi il faut aujourd'hui que dans nos parcs que l'État soit mieux présent assuré contre le je dirais le braconnage contre la le, le, de bois et cetera te yéen xam nga ni ñiy def loolu duñ fa demee loxoy nen dañ fay dem ak ay gànnaay donc mënoo jël ay agent nga dugal leen parc national Niokolo-Koba 913000 hectares nga ne waajooyu par exemple doo am lu lay conduire doo am arme doo am dara loolu mooy sacrifier say agent te souvent ne ñaan non environnement man gis ngeen ñi ma ñi ma àndal fii assemblée ñoom ñëpp ay officiers supérieurs lañ gis ngeen leen donc loolu ku ko xamul mooy wax loolu moi je dirige des forces de défense et de sécurité soppi nañ ko donc quand on dit qu'un contrat est un contrat de défense fii budget armement kenn du fi discuter